wala actualité la ñuy tànn waxtaane ko man ak kilik gi muy zone libre zone libre bi nag tey euh, ñoo ngi ko jagleel Sénégal bi ñàkk ay poñ euh, ci euh, plan classement bi nga xamee ni mooy classé dëkk yi ci wàllu liberté ak démocratie fukki dëkku Afrique yi nga xamee ni seetlu woon nañ ñu ñoo ëpp liberté ak démocratie bu mucc ayib Sénégal bokkatul ci classement wu fukki dëkk yooyu bi nga xamee ni mbir mi génn na ci subaak léegi ñëpp ngi ci wax fan yëpp doon na daanaka ak njaqare ak tiita tànge la jur euh, ci euh, bopp euh, ñu bëri loole mooy zone libre bi tey Sénégal léegi dafa libre partiellement di rapportu Freedom House ñoo ngi ko càmbar nag ci diggante 2017 ak 2020 laataa ñu koy waxtaanee ñu tegal leen explication yi ngeen comprendre classement boobule ak poñ yi nga xam ne Sénégal ñàkk na ko ci. ci wàllam Sénégal doon démocratie bu mag ci Afrique ñu koy saago ak it di ko bàkkoo fu nekk dafa en arrière diggante 2017 jàpp 2020 réewu teraanga gilee ñàkk na juróom-ñaar ci ay poñ jóge ci li ñuy wax pays libre donc jamono ji juróom-ñeent képp lañu ci Afrique gi yëpp Sénégal dafa daanu ni Inde na mu ko defee woon ci atum 2020 bokk ci dëkk yi ñuy woowee nation partiellement libre maanaam moom bopp ga fa askan wa amuñ ko dëgg-dëgg ci seen wet am na yeneen dëkk yu mel ne Malawi Madagascar Burkina Faso ak it yeneen dëkk yoo xamante ni waa Freedom House di kër gi nga xamante ni moo amal l'enquête bi la jàpp na ne doxuñ ci wàllum moom sa bopp ga fa fu mel ne Kenya Nigéria ak Côte d'Ivoire. diwaanu Mali tamit dafa anyeer dëkk booba fukk ak benn poñ la ñàkk diggante atum 2019 ak atum 2020 di at woo xamante ni coup d'état amoon na ca Bamako benee tamitam joxoon nañ ko baaraamu tuuma moom it en arrière na bu baax moom benee bokkoon ci fukk dëkk yi nga xamante ni ñu ngi leen doon ndamoo jëm ci wàllum démocratie ci Afrique ñu leen doon woowee ay pays libres ngir jeexatal ci dëkk yi nga xamante ni la ñuy woowee ay non libre am na dëkk yoo xamante ni askan wa fa bari na loolu te ñoom it ña ngi cee xool nañ ca génnee mu mel ne Éthiopie République démocratique du kongo Égypte am na yeneen dëkk yoo xamante ni ñu ngay góorgóorlu ci seen wàll mu mel ne ay Rwanda Tchad ak Cameroun ñoom i tamit euh, lu yàlla xam doy na foofa ña ko fa jiite dañuy jaay doole askan wa ñu xamle dëkk yi nga xamante ni ñoo jël ndadde ci wàllum démocratie ci àdduna bi daanaka mun nañ ci wàññee Érythrée Soudan du Sud ak dëkk bu mel ne Corée ak it Syrie ngërëm ñeel euh, Salif Sow mi ñuy defal jàngat boobule alaaji Makumba euh, Sénégal euh, pays partiellement libre bokkatul ci fukki dëkk yi nga xam ni ñoom la ñu daan damoo ni ko Salif waxee léegi ci wàllu démocratie ak liberté. Mm-hmm. en fait am na benn problème ci rapport bi. Mm-hmm. mooy dama gis ñun ak Tunisie ñu tolloo point 71 Tunisie jàll libre ñun ñu wàcc. partiellement libre partiellement libre. Mm Euh, jéem naa xool ci critères yi méthodologie bi mais mënuma expliquer wu loolu. Mhm. Euh, wàcc bi tamit du wàcc bu am doole benn point la ñu wàcc. ok 72 lañ jógee. mo 72 ku ko am da ngay qualifié da ngay jàll ñun 71 la ñu am benn point bi ñu wàcc. Mhm. ñu ngi ko wàcc ci critère bu ñuy tuddee l' du président de la république président de la république wala ka jiite réew ma nan la falo mhm. ndax bi muy falu lépp lu démocratie laaj am na pour mu mën ci falu wala déet. ñu ni Sénégal foofu 4 points la amoon ci bii passé bi yoon 3 points la am point boobu lañ perte moom moo tax wala ñoom lañ perte ñoom waa gouvernement bi parce que ñoom la ñuy noté bu dee ñun waa réew mi ñun waa Sénégal itam mën nañu jàpp ni suñu notation la. Mm. professeur nekkoon na fi ministre de la justice am na ay poñ yu bëri yoo xamante ne nii day dellusiwaat ñu ci critiquer Sénégal te boobu moom moo nekkoon ministre. Mm-hmm. mais fii li ñu critiquer mooy ndax jamono bi ñuy voté te jamono bi ñuy voté yaakaar naa moom moo nekkoon ministre de la mm-hmm. ndax jamono bi ñuy voté. président de la république bi lépp li démocratie di laaj pour vote bi nekk loo xamante ne nii libre et transparente lay doon amoon na wala déet. Mhm. ñu ne su fekkee transparence amoon na élection yi leer na itam libre amu ci woon. Mhm. ndax xalifa Sall moo ñu dabaat. xalifa Sall moo ñu dabaat ci ñoom dañu jàpp ne Khalifa Sall dañ ko waroon a bàyyi ni ñu ko tëjee jaaduwul mu bokk ci élection yi. Mhm. loolu moo ñu wàññi point Karim Wade itam dañ ko waroon a bàyyi mu bokk ci élection yi. bu bokkee ci élection yi ñoom ñëpp nag bu ñu bokkoon ba pare ñoom ñu gagné itam kon ñun dañuy des fañ nekkoon. Mhm. kon gis nga ñoom jàngaluñ ñu lu bëri maanaam. Mhm. lii ñu ñu wax ñun yàgg nañ ko yuuxu. Mhm. Karim Wade Khalifa Sall seen jàpp niñ nekkee ci kaso bi élimination candidat lool la rapport bi indiwaat gën koo leeral mais nekkul nag wàcc boo xamante ne nii detteelu bu baax a baax. garaaw la quoi waaw garaawul benn poñ rek lañ perte wala ñoom lañ perte. ci classement bi te je pense que war nañ mën a lijjantiwaat ba beneen at ñu seetaat yeneen yoo xam ni. Euh, mën nañ faa mën nañ mën nañ faa góorgóorluwaat mais xam nga dañuy calculer d'une année à l'autre mhm. jóge ci at jàll ci at mhm. calculer waat ñetti at yu mujj yi mhm. mais ñetti at yu mujj yi ba léegi boo ko gisee li ko marqué yépp mooy Khalifa Sall ak loi bi sur le parrainage ak Karim Wade ak Barthélemy Diaz parce que dafa nekkoon député ñu jàpp ko ci at yooyu ba pare am na feneen fu ñu perte fu perte point bu fekkee da nga da nga da nga jël globalement bu dee ci ñetti at yi mooy bii Barthélémy Dias demee Dakar Actu di fa def interview ñu fekk ko fa jàpp ko jàppaale journaliste yi mhm. tey journaliste yi ay waxtu doog leen bàyyi mhm. moom ñu téye ko loolu itam bokk na ci loo xamante ne nii ñaawloo nañ ko démocratie Sénégal ni mu taxe mhm. eh, yaakaar naa lii fi mujj xew nii ci rapport bii di ñëw lañ koy boole yooyu itam am nañ temps wu defaruwaat ay yenn manifestation yi parce que fii dafa am ay périmètres yoo xam ne dañuy wax ni kenn mënu fi manifester mooy arrêté wu Ousmane Ngom bi woon yooyu ñoom dañu jàpp ni fu neex waaye dafa war a manifester te loolu bu dañul boo moytuwul dinañ wéy ñàkk ay points ci yeneen at yi nga xam ne ni moom mooy tegu ci at mi ak rapport yi ñu ndax il faut rappeler Pape Djibril ni rapport bile ça n'a rien à voir ak manifestation yi fi mujjee am ak coow yi mujjee am ci réew mi ñoo ko càmbar wax naa ko sànq ci diggante 2017 ak loolu itam jar na préciser. tout rien à voir ak euh, kii information yi nga xamante ni mhm. mais xam nga xam nga benn think tank boo xamante ni moo ngi dem. toog di xalaat xëy na sur la marche du monde mhm. produit seen rapport mhm. yónnee ñu ko xam nga tamit ñun dafa am une condescendance boo xamante ni souvent certaines institutions dañ ko am vis-à-vis des pays africains mhm. souvent et c'est malheureux même souvent tamit dañuy trouver ay africains yoo xamante ni ñoom la àndal def liggéey bi je ne suis pas en train de remettre en cause le rapport mais dama bëgg a wax rek ne ñoom par exemple lii ñu càmbar a seetlu nañ ko ba pare. mais bu fekkee ne dañ koy jox dayo bii mu bëgg a am e dañu war a commencer ci définiral ñu lan mooy un état libre. ak est-ce que ñun ñoo bokk notion de liberté ou pa mm-hmm. est-ce que ñun ñoo bokk conception démocratie ou pa mm-hmm. donc pour man jàngat la boo xamante ni war nañ ko ci def liggéey nag sur un contenu local contenu local bi ñuy wax ci pétrole bi gaz bi mm-hmm. ñun tamit war nañoo am contenu local par rapport ak la démocratie et la liberté ñu mën ko tropicaliser ak limate ko ba nga xam dina dëppoo ak suñu réalité socioculturelle man rapport bi yi nga xamante ni maa ngi koy xaar fi mu ne mooy rapport boo xamante ni dafay attaquer la surpopulation carcérale bi ñu am par exemple mhm. li xew ci suñu prison yi pour man c'est une tristesse et que tey ji amul kilifa bu yeewoo Sénégal war a am xel mu dal conscience tranquille par rapport ak suñu prison yi ni mu demee mhm. c'est c'est c'est-à-dire que c'est c'est c'est ni muy ni muy dégradee doomu aadama c'est extraordinaire mhm. bëri na kilifa yoo xam bu ñu leen dugalee kaso ak ñu dul ay kilifa bu ñu xasee génn kaso ñu am benn njëriñ. waaw daanaka fa la ñuy jaaree sax mu accélérer seen faatu. beneen bi mooy tey jii euh, liberté man bëgg naa ko ak démocratie ak droits humains mais exploitation bi am tey jii ci réew mi ci wàllu barabu liggéeyukaay yi ak ñi nga xamante ni dañu nekk à tous les niveaux mooy multinationale yi ñëw fi jël ay sénégalais di leen liggéeyloo dans des conditions difficiles man bëggoon naa loolu rapport bu la l'insécurité alimentaire dans certaines zones du Sénégal. mais dafa atteindre ay ay proportions insoupçonnées yaa ngi dégg donc bu fekkee ne tamit dañoo bëgg loolu nga xamante ni day dal askan bu yaatu ay population yu yu am solo ñu bëgg a jël ñoom seen rapport daal di koy jël daal di koy personnaliser ci ay loo xamante ni dal na ay nit daal di koy bëgg a yemale foofu pour natt liberté réew moom ou pas pour man c'est très réducteur te dañ ko dugal ci benn mbir bu xat donc encore une fois euh, parrainage bi pour man c'est un vrai problème parce que euh, 19 avril boobu gis nañ ne dakaar dañ ko bunkériser woon d'une façon extraordinaire acteurs yi ci niñ ci waroon a waxtaanee ba d'accord ci noonu dañ ko y une démarche unilatérale boo xamante ni moom moom marqué affaire boobu loolu ñëpp xamoon nañ ko li dal Barthélémy Diaz aussi ñëpp seede woon nañ ko depuis Ndiaga Diouf Barthélémy Diaz dañ ko fekk ci mairéem di ko agressé di ko agressé ba nit faatu fa ñu jël ko dugal ko ci kaso bi mais ba mu nekkee ci kaso bi lañ ko def ci ay électorale mais ba mu génnee amaat ak ñoom ay problème ñu ne ko waat dossier baa ngi nii génnewaat ko teg ko ci suuf loolu tamit dafay remettre en cause ne boo nekkee ci seen boor ñi nga xamante ni ñoo yor nguur et ce n'est boo nekkee ci seen boor loo wax baax baax na soo nekkul ci seen boor soo commencé critiquer acak dossier judiciaire yi fi mu ne nii bari nañu génn ci nguur gi actuellement mais ñu ci bëri dañuy dañuy am ay appréhension dañ naan est que bu ma yëngoo duñ ma génneel dossier judiciaire mm-hmm. loolu aussi c' est une triste réalité te tant que dépassé wuñ ko pour ñu euh, jël en charge les vrais problèmes du Sénégal dafay jafe leneen lii nag mooy dama bëgg ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu jiite ñu am fulla ak fayda par rapport à ces corps de contrôle yi ne ak ay ñii di noteek ñii di ñii di ñu apprécier parce que dama fay dégg benn ministre mu ne la FMI e euh, le FMI et la Banque mondiale sont les meilleurs arbitres de ce que nous faisons ma ne ko boo ma indilee réew mu génn réew moo xam FMI ak banque mondiale ñoo la génne ci ñàkk ma ma tiré la chapeau amul FMI ak banque mondiale du ñu la génne ci ndóol li ñuy def xanaa mooy yónnee la seeni fonctionnaires yoo xamante ni ils vont te permettre ils vont te contraindre à serrer la ceinture pour rembourser la dette. mais kon ndax laaj bi dagan na ñooy ñan. ba war a juger ñooy ñan ba war a juger et sur quelle base sur quel critère la ñuy basé wu li ñu ils ne nous apprennent ma ko mbox na ils ne nous apprennent absolument rien mhm. mais nag suñu gars yi ñoom dañoo bëgg notation yooyu su baaxee ñoom ñu kii ko waaye bu bonee nii boo ko tuddee rek ñu rey la mhm. waaye nag bu baaxoon tey soo waxee ñu ne la non pourtant euh, am na rapport boo xamante ni wax nañu nu sommes libres mhm. opposants yi nag tey ñoom ñooy jël affaire bi ne leen gis ngeen lii waaye bu baaxoon tey jii boo ko tuddee sax opposants yi ne la non ñoo ñooñu du ñoom ñooñu war a juger donc da ngay da où se trouve le Sénégal et les préoccupations des Sénégalais dans tout ça. voilà franchement. Adja Binta. <laughs> moi je vais rejoindre Pape Pape Pape Djibril mu wax ce matin quand je me suis réveillée xool un peu euh, les informations quand je suis tombée sur le rapport je me suis dit tiens. Hmm. lire naa ko ba pare mais. t'as rien compris base scientifique. la ñu waxee lii ñu wax. Hmm. j'ai même appelé des amis yoo xamante ni si j'ai des problèmes un peu de compréhension sur. euh, les actualités politiques ou quelque chose comme ça pour discuter un peu. Mhm. ñu ne man ce sont des indices. ils se mhm. basent sur des indices pour euh, mun a wax euh, ci ci réew bi ci mhm. réew yu demee nii mais ma ne ko pourquoi ñoom toujours ñoom ñooy ñëw di ñu wax lan moo nekk ci suñu réew. où sont nos universitaires lu tax ñoom duñu dem aussi ci réew yooyu. di fa def di sur la base des indices. di wax réew yooyu aussi ni ñuy doxee. ñoo ngi ko publier depuis le 11 mars. oui mais parce que tey ñi ñu doon montrer un modèle démocratique. te wane nañu à la face du monde que nekkatuñu ñoom tam des démocraties modèles mhm. nekkatuñu à l'époque de la de boule yi nga xamante ni tey jii dañ doon basé suñu relation sur le naka la démocratie di doxee mhm. naka la liberté d'expression di doxee pour ñu mun ni diñu apporter seen ay aide nekkatuñu ci loolu mhm. donc je pense que li ñuy wax nii ay recule démocratique teguñu ko ci benn donnée benn dañuy jël trois points il y avait le parrainage c'est vrai que parrainage bi ñëpp a ñëpp a ko parce qu'on s'est dit que c'était une façon d'écarter des, des adversaires politiques et ñëpp perception boobu la ñu am jusqu'à jusqu'à la preuve du contraire ça s'est passé comme ça mm-hmm. am na yeneen yoo xamante ne am na fi dama est-ce que le recul démocratique c'est juste avec Macky ou c'est une continuité parce que a vu avec Abdoulaye Wade ce qui s'est passé il y a eu l'affaire Idrissa Seck avec Abdoulaye Wade mm-hmm. il a eu l'affaire Macky Sall ko bëggee éliminer parce que il y avait son fils pour placer son fils il a fallu mu bëggoon éliminer Macky Sall donc euh, affaire de recul démocratique liberté d'expression la loi Ousmane Ngom c'est c'est c'est su Wade kenn mënu manifester tey fële au centre-ville parce que y a une c'est une restriction de liberté mhm. individuelle mhm. commencé wul rek si euh, ci ci ci Macky Sall mais c'est avec euh, Abdoulaye Wade mu nekkoon continuité léegi nag lan moo ci problème je pense que ci loolu la ñu war a toll jamono gii mhm. wax nga ko sànq y a des choses beaucoup plus sérieuses mhm. si jamono gii ñu toll mhm. nit ñi sonn nañu ndax li ñuy noté Sénégal on a vu ce qui s'est passé on a vu ce qui s'est passé les jeunes ont exprimé leur colère de façon violente dans la rue on a eu 14 morts soxlawuñu léegi amuñu recul amuñu démocratie amuñu liberté d'expression suñu amul woon liberté d'expression doo toog fii duma toog fii keneen du toog fii faut qu'on arrête quand même di ñu di di. liberté d'expression boobu 2 sur 4 la ñu noté. waaw c'est ça. bu fekkente ne il faut que ñu di di di di fowe suñu ay ay suñu ay xel di insulter no no no notre intelligence. am na leneen loo xam ne tal nañ ko te de façon collégiale Pape Cheikh. Mhm. je pense que dañu war a booloo. Mhm. pour une bonne fois pour toutes trouver des solutions. pour suñu réew mi jëm kanam parce que yeneen réew yi développé tooguñu rek ñu leen di wax yéen seen politique lii la jël ngeen opposant bi dugal ko ci kaso bi def ngeen lii def ngeen lii libre ngeen libru leen waa libru leen libru leen mhm. ku def loo warul def dañ lay dugal ci kaso bi c'est vrai que nag président wax na ñëpp ne am na ay dossiers yoo xam ne moom moo ci teg loxoom c'est vrai que l'indépendance de la justice juste ñoom seen bopp ñoom ñoo ko demandé mhm. les magistrats seen bopp l'UMS moo demandé à être beaucoup plus indépendant mhm. c'est vrai que yooyu yëpp mu ngi fii mhm. mais je pense que l'essentiel aujourd'hui c'est de trouver des solutions pour que xale yi mën a liggéey pour suñu réew mi développer parce que nous sommes dans un nouvel ordre mondial épidémie bi ñëw na bouleverser le monde tey jii les grandes économies ñëpp yëpp a daanu donc muñ fi bëggee dugaat ci ay détails dañuy gën a euh, sërëx on était à 7 pour cent de croissance egguñu récession on a on est à 1,5 ça veut pas dire que les choses euh, euh, les clignotants sont sont au vert mais si on continue dans les balivernes dans des polémiques inutiles ñun ñëpp ay sonn donc je pense que on doit penser maintenant à aller vers l'essentiel le, le le dialogue national bi président wax dañ ko yokkaat pour deux mois je pense que dialogue bi tey léegi la am son sens sa véritable raison d'être il faut que ñu toog waxtaan trouver des solutions pour suñu Sénégal bañ a euh, suux ndax le ministre de l'Intérieur l'a dit et jusqu'à preuve du contraire moi je crois à ce qu'il a dit parce que le ministre mën na am ay information yoo xamante ne man mënuma ko am yow mënoo ko am mm-hmm. keneen mënu ko am mm-hmm. il est dans le secret des dieux s'il a dit que nous nous avons été infiltrés c'est parce que nous avons été infiltrés n'oublions pas que nous avons du pétrole am na ku ko wax Euh, le le le l'ancien ambassadeur de de la France Ruffin nee na pétrole du toujours lay baax. parce que y des prédateurs qui son la yu yoo xamante ne dañuy yàqamte rek benn dëkk rek benn étincelle bu fa am rek ñu ñëw taal ko mu tàkk hmm. te bu tàkkee ñun ñëppay ñun ñëppay tàkk Pape Cheikh hmm. nañu sauvegarder suñu réew suñu Sénégal bu ñu xamoon bu ñu nangu kenn yàqal ñu ko na ñu continuer di liggéey politique am bu jotee ñu politique bu liggéey jotee ñu politique mbéjum kanam mu koy fajal boppam kon ñu fajal ko suñu bopp xanaa hmm. xam naa ne gan gi dina am lu mu ci wax ndax euh, xam-xama màcc na ci wàllu roi ci càmm